vidéo Pape Abdoulaye Touré bi nga xam ne Xalaat TV def na ci reportage ak photo yi nga xam ne circulé woon na ñu xëy rek gis Pape Abdoulaye Touré ñu yeewu ñaar loxo yi yeewu ñaar tàngir rek torturé ko dóor ko ba damm ay loxoom waaye yemuñu ci demoon sax ba bëggoon ko taal faf lan moo waral jëf ju ñaaw ji kan moo làquti ci ginnaaw Pape Malick Ndour tuddoon nañ ko ci moom Abdoulaye Touré moo ko wax moo def deful kan moo ko yónni lan moo waraloon mu bëroo bëggoon jël bakkanu Pape Abdoulaye Touré lan la ngir rek gis ne woon gisoon nañu ci portable am écran de fond bi nga xam te ne Ousmane Sonko la ci def waaye gisoon nañu ci université ba mu nekkoon jàmbaar ba ñu dàqoon ko fa xeex yi mu doon xeexal réewam ba mu jaraloon ko bakkanam yooyu yëpp nag ndax dañuy jël rek tàbbal ko ci géej déedéet di jee Badji ak ak François Mancabou ñoo ñooñee tamit di ay jàmbaar Fulbert Sambou Alioune Badara Ndao quatre-vingts martyrs yi nga xam ne ay ndaw lañu ku ci am trente ans amul ñoom ñëpp ñu faat leen rey leen ñi ñu tëj plus de mille cent mille ñu bëgg rek gëmloo ñu loo xam ne nekkul gëmloo ñu politique gëmloo ñu ay assemblée nationale ñuy mbiicoo mbaacoo nga xamante ne ñun loolee taxu ñu jóg la ñu tax a jóg mooy justice Ousmane Sonko di premier ministre du Sénégal waxoon na ci kàdduy gouvernement bu Sénégal ak ci njiital président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar fay ne bu ñu topp kenn du ñu fayantoo waaye justice dina am justice boobee nag moo taxoon ñu balee képp koo xam ne magistrat nga nekkoon fi nga xamante ne da nga jege Macky wala nag di doon def li nga xamante ne Macky Sall kese moom la neex nga ko doon bégal ay mbégteem yi nga xam te ne toppoon bakkanam ba faat ci askanu Sénégal ñooñu ñëpp nag ginnaaw bi biñ leen balayee ñenn ñi yóbbu leen Tamba ñenn ñi Kédougou daal di utaat ay ñeneen wala jëlaat sax ñeneen ñu bees ñoo xam ne dañuy neutre waaye dañuy tëddee njaaxaanaay ku ci mel ni Ibrahima Ndoye ku ne xam na ko dégg na ko dossier bu mag boobu ci Cheikh Béthio moo ko yoroon ak Bara Tall moom du caaxaan te lépp lu mu jàpp faw rek mu jëm jusqu'au Sénégal ci semaine yi wala ci weer yi dana neex wala dana xumb dana dagan la waral mooy waa APR kenn ku ci nekk yaa ngi bëgg daw génn réew mi waaye sénégalais yi ci boppam lànk bañ li tax ma ne sénégal yi lànk bañ mooy aéroport ña fa nekk. képp koo xam ne laale woon nga taqe woon nga ci li fi xewoon ci deux mille vingt et ba deux mille vingt quatre wala sax ci fukki at ak ñaar yi nga xamante ne Macky Sall yor na ko réewum Sénégal réew mi ci jamono ji nga génn ci ah dana jafe lool ñi jot génn daw. rawuñu ndax it nag ku mel ni Mame Mbaye Niang dossier am daal di nañ koy jébbal dikk loolu daal nar naa neex Mame Mbaye Niang mi waxoon ne rapport amul Mame ñaa Niang mi taxoon fëgg dënnam ne Ousmane Sonko li muy wax dara du ci dëgg waaye sax dafa doon laaj këram di laaj ay milliards waaye tey jii Sénégal yi ñoo koy laaj seeni milliards fan la ko Mame Mbaye Niang dugal.